Des gens être arrêtés parce que simplement ils donnent leur avis sur la situation politique et économique du pays est écœurante et il faut arrêter. Il faut rappeler à Macky que le pouvoir, un jour ou l'autre, quittera ses mains et sera entre les mains d'une autre personne. Et en ce moment-là, on verra. On verra. Et en ce moment-là, il devra comprendre que gérer un pays, avoir le pouvoir, n'est pas une occasion pour utiliser euh, la justice, utiliser les institutions, utiliser les forces de défense et de sécurité contre sa population et contre son maire. Ziguinchor a payé un lourd tribut, avec le nombre le plus élevé de populations tuées lors de manifestants et de blessés. Ziguinchor, pour la seule raison que Ziguinchor abrite l'opposant le plus farouche au régime, a compté le plus nombre de morts. C'est inacceptable c'est inexplicable Ziguinchor subit aussi le blocus du bateau en tout cas un blocus de, du, du, du point de vue du transport parce que aujourd'hui comme vous le savez et depuis longtemps d'ailleurs le bateau ne dessert plus Ziguinchor les bus Sénégal Dem Dikk ne desservent plus la région de Ziguinchor alors que aucun bus n'a été touché aucun bus de Sénégal Dem Dikk n'a été touché à Ziguinchor. Ça aussi, il faut le rappeler. Tous les bus qui ont été brûlés, saccagés, l'ont été à Dakar. Et pourtant, à Dakar, les bus circulent toujours et transportent les populations. Mais à Ziguinchor, parce que l'opposant le plus farouche au régime habite Ziguinchor, on crée un blocus. On, on arrête les bus, Sénégal Demdik, on arrête euh, le bateau. Et cela à une, a des conséquences désastreuse sur la sur l'économie de la de la région de Ziguinchor. Cela est inacceptable. Donc nous demandons solennellement à Macky Sall de libérer Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, de libérer tous les détenus politiques pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. monsieur le maire Djibril Sonko. Euh, kontaan nañu ci kàddu bi nga jël. Euh, monsieur le maire comme ni nga ko waxee. Euh, tënk nañ ko si ne dañ dafa sàcc portable wax dëgg yàlla muy lu gàccelu muy lu toroxlu muy loo xam ne Sénégal yaakaaroon nañu dépassé nañu loolu nga jàpp ku mel ni Ousmane Sonko nga ne portable la sàcc gàcce la ci réew Sénégal donc monsieur le maire wax nga kaddu gu rafet ñu ngi jox kaddu gi monsieur imam Moussa Sambou nga xam ne teewal na imam yi yëpp waaye teewal na imam Fansou Bodian bàyyeekoo ba Bignona monsieur Moussa Sambou vous avez la parole asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أعوذ بالله السميع العليم من شر الشياطين الجن والإنس وقال موسى إني عصت بربي وربكم كل متكبر جبار صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل محذرا عباده واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وهو أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل المسلم حقوق المسلم لا يظلمه ila axiri alxadis sallallahu wa malaikatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi donc euh, imaam yi moo nekk di def mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo gën ja nuyoo di yàlla leen yàlla jàmmal jàmmal mbooleem doomu Sénégal amiin fu mu mën a nekk ak ruq bu mën a nekk rawatina ci yàlla mayam bu muy may ay jaamam te moo ko biral ci alquran dalika fadlullahi yutihi man yasha ngéneel borom bi moo koy jébbal jaamam bu ko soob ngéneel googu bu ko yàlla jébbalee jaamam ñëpp dañuy yaakaar ni jaam jooju melul ni nit ñuy mel fekkente ne du dara lu dul ngéneel borom bi subhaanahu wa taala yàlla mooy def cofeel ci xol nit ñuy bëgg ko mu mel nii sunu mbokk ñenn ñi ne ko Ousmane mu sell mi président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla aar sàmm ko Ousmane Sonko moo waral daje bi ni lislaam nee na daje boo gis am na lu ko waral waaye bërëb boo jis tamit am na ay kàddu yu ñu ko mën a rotal ni ñuy mën koo dégg mu yomb lool ci ñun ni ay ndongo ñi waxtaan ci nit ñi ci wàllum delloo leen ci seeni boroom ci ni mu gënee ndaxte yàlla li tax mu rangoo doom aadama dafa teral doomu aadama ba noppi mu ne wala kat karram naa bani aadam wa xamalnaahu fi lbarri wa razaqnaahu min altayibat wa faddalnaahu ala kathirin min man xalaqna tafdila mbokk yi loolu yàlla moo rangoo doomu aadama moo taxit yàlla mu jël kàdduwam tegaat ko ni inni jaailun fil ard xalifa tey boo déggee kilifa yi ñuy wax xalifa di jooytu ngir ñu wàllu si askan bi ndombo tànk boobu yàlla moo leen ko jox ci ngëneel bu mu leen ko jox waaye nañu fàttali ñun ñëpp di imaam di sëriñ di xalifa yonent yàlla daawuda keroog bu ko yàlla di nome xalifa ne ko yaa daawud jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bil xaq yaa daawud yow mii tànn naa la nga wuutal ma fii nekkal ma foofu ci askan bi doxalal ma foofu nekk représentant yàlla du nit ku tuuti nekkal yàlla ci kaw suuf du nit ku tuuti mbokk yi loolu nit ki nekkal yàlla ci kaw suuf mën nga ko géex ku nekk mën nga ko fekk ci jàkk yi mën nga ko fekk ci tànt yi waaye mën nga ko fekk ci bureau yi kon di waxtaanee loo ci kallaama googu woo ci ñëpp rawatina suñu soppe yi nga xam ne ñooy waa kër église mbir mi toll nañu fii ci suñu kilifa diine yi yëpp lañ jox cër ndaxte ñun waa Casamance bu nit amee jàngoro kas ngeen baal ma xam naa ni am na ñu xam kas am na ñu ko xamul mooy di bon botti wante ci xeet ne géer du sëy ak géwél wala joolaa du sëy ak eh, baynunke loolu kas la botti la ci xeet te loolu lislaam daf ko njëkk a xeex kilifa diine yu fi nekk dañ ko xeex kon bu ñu ñëwee ñun Casamance suñuy baax maam mooy Casamance ñëpp benn lañ ku sant baaj ak ku sant Dramé ak ku sant jàlloo ak ku sant Cissé ak ku sant Diouf ak ku sant Ndiaye ak Seck sant yi yëpp am Casamance lu koy wone nii kilifa yi nee nañu Casamance bi mu tàmbalee seen mairie yi seen administration rawatina mairie yi fal nañ fi maire bu sant si am na wala amul man mi bàyyaa ngi kon boo demee feneen tamit yeneen gox yi fasantikoo loolu nga fay fekk bu ñu naree nag kas réew mi ni ko monsieur le maire waxee sama nijaay monsieur Sonko jàpp ni ñi askanoo boor bee ñoom war ñoo mën a am yenn sañ-sañ ci ak ak yelleef ci jiite réew mi ci yaakaar askan bi ak doomu aadama yi am ci ñoom loolu doy na toskare l'islam nangu ko te suñu aada diine suñu aada réew tamit nangu ko ci kaddu yooyu lañu déggoon ñun tey suñu taxawaay dafa bokk ci liy wone citoyen action citoyenneté di lan passeefu ak dogu ni jullit dafa war a am engagement ci boo gisee lu doxul ci sa réew da ci war a taxaw man raa minkum munkaran fal yughayyiruhu képp ku gis lu jëmul kër ci sa réew di sa gox ci fi nga dëkk na ko soppi coppite gi am na responsabilité fal yughayyiruhu bi muy laaj doole kooku dañ koy delloo kilifa yi rawatina ñuy jiite réew mi bu ci tegu fa in bu doole bi mënul dindi dara fa bi lisaanihi mu jël ko ci kaddu mooy kilifa yi kilifa yi war wax ak jaboot ji ñaan leen ci njekk jaboot yi may leen ko waaye du mën a ñaan kii tey njekk mu nangul la ko ëllëg mu nekk ci jafe-jafe nga war koo mën a ñaanal nga gàttañu lu loolu wala nga tee koo def ci waxtu ba nga koy defee defe naa ni ndongo bu nee laa labiraa la di sàkku ne sarax añ fu mu ko soxlaayee dafa bëgg añ ki nga ko war a wàllu jox ko mu añ waaye doo toog ba xiif bëgg koo rey nga bëgg koo wàllu si kon ngeen baal ma ci kàddu gi dañ ko tënk junj ko waaye arab yi nee nañu al ishara takfi li du labiba junj doy na borom xel suñu toogaay fii ay julit lañu ñoo yore kàddu lislaam ñëwuñu pour xarab kenn waaye ñooñu pour diingat kenn ci yar ak teggin boobu ñu gis jëmm jooju di président Ousmane Sonko yàlla def mu féetale ko tey fu gën a am solo ndaxte yéen tey da ngeen koy taxaw ci wàllum politique am na solo waaye ci wàllum daara ñun ñii luñ ko ci xam bëri na ñu fi nekk xamuñu ko ci loolu. ñu ngi seede ci suñu kàddu responsable national imam Cheikh Tahir Fall bu Pire. nee na 27 ans de compagnonnage defe naa ne vingt 27 ans ku ko def yow politique xamagu la daara yi ak sëriñ daara yi ñoo la xam. na ci alxuraan bu ñu waxantee dëgg dina am ñu bëri dinañu lot pour jàngee noonu alxuraan ma yaakaar ne lépp dañ koy dugalaale ci biir ñi bañ koo def iñaane bañ koo def eh, topp ko ni kii dafa bëgg a wane lu fi amut ndaxte li fii sama nijaay wax. taxawaayam ci sellal ak déggal looloo tax alquran wàcc looloo tax yàlla wàcc ay yonente yàlla nee na wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazal dëgg moo tax alquran wàcc dëgg moo tax yàlla yóbal ay yonent waaye dëgg moo tax ni ñi ñu mën fee nekk dëgg googu mooy tax fi nga bokkalul diini sax mën ngeen jàmmoo te doo ko faagaagal kon li ñu bëgg a wax askan bi tey ñaan ko ci président de la république mi nga xam ne mooy monsieur Macky Sall El Hadji Macky Sall ndaxte ku dem Makka ay yoon yoon la te yaakaar nañu ay makkaam yàlla nangul na yàlla yal na yàlla jubbanti xelam sànni jënnee lu nga xam ne noonu yu koy xàmb ndaxte foo gis nit muy def naka su dul noona am na ñu lay xàmb ngay dugg ci loola nguur bu dul jeex amul nguur bu dul jeex amul dégg ngeen déclaration Maulana Cheikh Mouhamed Soubo Dia ñun tey lu ñuy wax ñun la engagé lu ñuy def nag dañ koy yëgoo ak moom ñu am ci ndigal waaye luñ fi yëkkati ci suñuy kàddu ñun la engage waaye ku mel ni président Macky Sall xam na kan mooy El Hadji Mansour Boye Diagne yéen mi fi nekk xamu leen ko mun naa leen waatal ni même président Ousmane Sonko ni Macky Sall xamee El Hadji Mansour Boye Diagne Macky Sall xameewul noonu kii Ousmane Sonko xameewul noonu El Hadji El Hadji Mansour Boye Diagne ngeen baal ma ci kàddu ndaxte bu muy métti ci moom ëllëg bu muy jaaxle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 mu bàyyi Ousmane Sonko ak détenu yëpp ñu ñu tëj yëpp ci lu dul dëgg politique la wala du politique nañ leen bàyyi ci lu dul dëgg ñi bàyyi leen li yàlla wax ci alquran gi tooñ weesul li am ci Sénégal yëpp yàlla mooñ ko artu ci alquran laa tusiibanna alladina zalamu minkum xaasa ñi waral ndey mbill ci tooñ gi tuumaal Ousmane sosal ko fen ñooñu tey France ni xëddéem dara jotu leen loolu la yàlla wax ci alquran ay du yem ci boppi boromam ñoom daw nañu dem dara jotu leen làkkalewuñu deewlewuñu tey ñu ci làkkale deele ci seen yoon nekku ci kon loolu la ñu am di mu fàttali ni ñi rawatina ñu nga xam ne ñooy suñuy frère suñuy jarabaat suñuy doom suñuy taalibe ñun ñoo leen di jiite ci jàkk yi te ku ci wuyu boromam di alkaati di gendarme di militaire ñun imaam yi ñoo lay taxaw plaider la sans droit sans cause allahumma axfir lahu yàlla ko yàlla jéggal kon am nañ droit di wax ak alkaati yi ak gendarme yi xamal le ni bakkan boo rotal dafa mel ni àddina yëpp nga faat yàlla moo ko wax ci alquran man qatala nafsan fa ka annama qatala naasa mbokk rawle rawale bakkan moo gën ngay faat bakkan li tax xanaa ngeen baal ma comme suñu xam-xam màccul ci fànn boobu ñaxtu dox ñaxtu dox ñaxtu defe naa noonu ngeen di koy waxe li la metti ngay jën di koy wone est-ce que Sénégal liñ ko sartal ci suñu réew ci suñuy loi dagalan la nit ki ku jóg di ñaxtu nga fetal ko rey ko waxuñu charia de waaye bu ñu delluwee ci yàlla li mu wax kon nañu bàyyi li ñuy def taal sax di lacrymogène tooke yooyu ñuy sànni ci askan bi kenn wératul léegi ci tooke ñu naanoon ci ay jamono nañu xalaat nii bu doon nit nee na leen dañ leen fay ngir ñu mën a def liggéey googu waaye nit kooku ku wax loolu fayu leen ki leen wax loolu askan bi gudd xataal di leen fitnaal di leen rey seen ñàkk seen impôt lañu ñu dajale ñi lay fay yow mi sol tenue bi yow mi di alikaati ak gendarme ak militaire kon nañu bàyyi delloo ci yàlla mu muñ xam ne ñun ñoo bokk lépp ñu ñooy dëjalante ñu ñooy jaalante ñooy demalante xew njiit boo xam ne day dem mu neex naqari ala kulli xaal day dem yaakaar naa ne Macky Sall sax président Macky Sall alaaji Macky Sall tàggoo na nee na moom du ne du doon candidat ana lu tax léegi nag réew mi war a toll fu mu war a toll luy raam tabbi na ci ñag ñun dañu ne lu ko fay génneew lañu ñu toll nañu dimbale moom day dem mu dimbale nit ñi li ñuy génne réew mi ci ñag bi sous région bi neexul addina bi neexul su ñu toll nii li ñu ñaan mooy rey bakkan du pexe rey nit loolu mooy solution jeer yu ñu fi dégg yëpp suñu maamaati maam yi 14 19 yi ñu fi dégg yëpp 39 45 yi ñu fi dëkk am déet dañoo toog ci table waxtaanee ko. Sénégal li ñu xamoon ci njëkk ak teraanga Sénégal moo dëppër ñi baaxu maamam yi ak raf luñ ko luñ ko baax ñu ko amee woon ci jamono. Sénégal pays de dialogue waaye dialogue Sénégal tey dialogue fitna la dialogue fitna. dialogue fitna ay sëriñ ni man di ay seen nga xam ne seen ñoo ma gën sant baay ñoo ma gën sant maam ñi taxaw ñi ne borom doole. gëmmal dóor sëggal dóor xam naa bu doon làmb la sax wala box boo koy arbitré dafa am ay règle Yékini du bëri ak yaaw jaal nga ne ko waaye gëmmal dóor ngeen baal ma ni ma joxee tetal xam nga yooyu dafay wane ni ñun ci keppaar gi ñu toll nii dañoo bàyyi lu suñu maam yi bàyyoon fii Seydi El Hadji Malick Cheikh Ahmad Bamba ñu mel ni ñoom alquran gi yonent bi li mu fi bàyyi li mu fi yàlla waxal bu ñu ko defoon ci jàmm dinañu am jàmm waaye lu ñu gën a soxal mooy Ousmane ni ngeen ko yaakaaree ci réew mi ñun loolu lañ ko yaakaaree ci daara gi Ousmane suñu nawle la Ousmane imam la Oustaz Mansour Samb ba ca Tiwaawoon te nekk secrétaire général l'union des daara moderne nekk na ak moom balaa muy ñëw cité kër góor gi quartier bu mu njëkkoon a dëkk ca Dakar nekk na imaamam foofu nekk na naayibam kon ñun ñun président Ousmane Sonko dañ koy plaider en tant que imam en tant que collègue imam réew mi lu Cheikh Ahmad Tidiane si waxoon Al Maktoum nee na fii tolluwul te maire bi jiite maire bi en même temps mu nekk imam ratib ci jàkk ji te yéen Ousmane boo leen ko amee fii en tant que maire gëm leen ni am ngeen ko en tant que kon yàlla ko yàlla delloo si ci jàmm seytaani bu ci nekk ak gàllankoor bu ci nekk yàlla ko yàlla teg Sénégal nag mérité lii ñu ngi invité Sénégal ci fitna bu ne Sénégal ñëpp lànk nañu te nañu lànk ndaxte tey ku ne yow man bii xeet bi laa bokk am nga goro feneen am nga jarabaat feneen kon yàlla yàlla saxal loolu loolu la ñaan waxuma Macky Sall waaye ak ñi ko ñi ànd ak ci ginnaawam yëpp rawatina magistrat yi nga xam ne ñoom ñoo ne di fi atte nañu atte ñoo ñoo nawloo yàlla yàlla nee na alaysa allahu bi kamil haakimiin xanaa du yàlla mooy atte attekat yi kon guddal nañu ngeen baal ma ñi xam ni ñun ñëw nañ fi en tant doom réew mi waaye bëggal réew mi jàmm ñun ñi nga xam ne ay joolaa lañu liñ fi wax mu leer kasan mu leer tas néew ci olof xam ni ñun bot di wantewuñu ci bañuñu ci làkk olof bu ñu ko bañoon duñu ko mën a làkk ak keneen ak keneen kon bu ko defee di nuyu ñëpp di nuyu famille président Ousmane Sonko di nuyu ay naataangoom ñu mu bokkal ci mairie bi di leen masaw coono ndaxte am na ay signature yu nga xam ne ku sañoon nga ñëw wut sa kayit ñu ne signature président Ousmane Sonko moo nekk ci sa kayit dëkk ñëpp ci bëgg a barkeelu kon yàlla yàlla jàmmal réew mi allahu subhanal muxallis an kulli mastur subhanal muxallis an kulli mastur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 Sonko! Sonko! Sonko! jàppale waaye page mairie bi jàppale ma dem bureau kon alhamdulilah imam matale nga taxaw nga taxawaayu imam kaddu yi rafet na fasaha na macha allah yàlla yàlla dëgëral yàlla yàlla def jàmm kon euh, bi ñu jógee ci imam Moussa Samb dañuy ñëw ci le représentant des chefs de muy Moussa Camara. kon moom fu mu ne nii moom mooy wax ci turu quartier yëpp ci biir Ziguinchor kon euh, sëriñ bi jox nañ la kàddu. Euh, asalaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi jégalu ndaxte dama wax lu yàgg dama jóge ci terrasse ay masawu coono waajur ak njabootam yëpp yàlla dafa def foofu naan ñun mooy suñu mooy suñu kilifa ndaxte yàlla mooy fal yàlla bu ko mu nekk suñu kilifa ñun chef d'état kon lépp loo xam ne dal na Ousmane rek ñun dañ koy yëpp ñun yàlla koy neexuñu waaye dañ dañ koy mën dara boo tax ñu ñaan ko moom li nga xam ne lépp lu sotti moo ko sotti mu fexe ba Ousmane ñu bàyyi ndax ñu wóor lenn ma wóor na la ñëpp àndoon ne dañuy dimbali Ousmane pour génn te yàlla ànd ci bu génn bu ñëpp àndoon yi dañuy xeex Ousmane te yàlla ànd ci du sotti yàlla mooy sotti kon man délégué de quartier yi chef de quartier yi ñu ngi tàllal suñu loxo suñu borom dimbali ñu ko Ousmane li mu nekkee mu gën a ko ci jàmm maa ngi jégalu jërëjëf wax bi gàtt na matale na waaw ndax lu ñuy sàkku ndax lu ñuy sant kon euh, ñu ngi rafetlu représentant chef de quartier yi wax bi gàtt na na gàtt na lool te matale na ndax lu ñu ciy sant yëpp wax na ko ci mooy libérer euh, le maire de Ziguinchor monsieur Ousmane Sonko ak les détenus politiques kon ñu ngi jox kàddu le représentant euh, des sociétés civiles yu fi nekk muy monsieur Sersi Monsieur Serre, si vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo ñu ngi àddu si société civile bu Ziguinchor si li nga xamante ne ñun ñëpp xam nañu lu xew Sénégal depuis 22 jours mooy l' arrestation du président Ousmane Sonko. qui se trouve être en réalité l'espoir de tout un continent. parce que Ousmane Sonko dayoom jéggi Sénégal gis-gis bu mu am beesu na frontière u Sénégal moo tax fépp foo dem ci kaw suuf am na ay jotaay mel nii yuy défendre Ousmane Sonko pour ñu mun koo waaye di ngeen mu may tuuti ñu fàttali. Parce que au-delà de président PASTEF, au-delà de Sonko, l'espoir des, des jeunes, Ousmane est en le maire de Ziguinchor. tey yàlla def façon natt bu ne ñu ngi koy teg waa Casamance ak waa Ziguinchor parce que tout simplement Macky Sall opposant bu toll ni Ousmane Sonko te yàlla def Ousmane Sonko dëkk Ziguinchor jiite waa Ziguinchor coono yi monsieur le maire wax na ko bëri na li nga xamante ne waa Ziguinchor dund nañ ko waaye ci turu société civile ñu ngi woo ci Sall ak ñi mu àndal ñu daal di dàkkal coono bi bés nekk tey te nu mu gën a gaawee mu bàyyi Ousmane Sonko ak bépp détenu politique li nga xamante dugal na ko si kaso lu ma mun a yeggali nag te waxuma si sama nawle sama naataangoo muy Ahmadou Mbodj di toom boo xamante ne si social kese lañ ko xamee te bañ koy jàpp itam si social la doon dox ndax mu ngi doon yóbbul ay freeram am yi nekk si kaso yi seen lekk ñu daal di koy jàpp si yoon bi dem yóbbu ko si kaso bi ñu ngi ñaan Macky Sall ak procureur bi na fexe mu gën a gaawee na bàyyi Ousmane Sonko bàyyi détenu politique yëpp yi nga xamante ne daf leen jàpp si prison bi. parce que ay fanam moom Macky jeex na si boppu réew mi donc nañ delloo Sénégal comme nuñ ko ko joxee woon la muy def nii buñ ko ko defoon xëy na du demee nii donc loolu la ñoom amoon ku wax ko di ñaan ñëpp yokk taxawaay bi. parce que fu mu nee nii Ousmane Sonko ak détenu yi yëpp yokku taxawaay kese mooy tax ñu mun a dellu si suñu seen kër te Sénégal day continuer te incha allah ñu jeunesse bi bëggee mu continuer noonu lay continuer maanaam Ousmane Sonko mooy nekk suñu candidat en 2024 te mooy jiite réew mi incha allah. libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré kon jërëjëf ñu fi teew ak ñi bëggoon teew te mënuñ teew ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci taxawaay bu ñu am pour seen réew ak seen askan kon dañ ko bëgg a tëjee ñaan imaam yaa ngi fii mënuñu tëj ci tasaaru rek jóg tasaaru ñu jox kaddu gi imaam yi ñu tànnal ñu kenn mu ñaan suñu ñaanee rek ngeen xam ne ñaan bi su jeexee levé nañu séance kon imaam xandal صلي على النبي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 آمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك آمين اللهم صل وسلم على رسولك آمين اللهم تب علينا آمين آمين وارجع إلى بيتك آمين سالما سالما سالما سالما وارجع إلى بيتك سالما سالما سبحان ربك رب العزة وسلام kon jërëjëf.